Oh, iya, iya. kay ndogu ay waay Samba Cheikh yow tax jabootoo ah Cheikh yow ya, war nga maa bàyyi maag sa nijaay ci kaw ak sa benn rakk bu jigen be. nga teg sa ñaari kaas def trois ya, mois di ndogu yow ya, Cheikh luy sa problème Cheikh soppeeku nga de ba nga takkee sa ñag bi ba léegi si xaar da nga ni may sa yaay ana sama mbak sama wasin sama nak ak sama neexal ak sama neng-nengal ya lay waxal soppe ko nga torop waye li la bëgg mu juk legi fekk ma ca saal ba sa nijaay sa bul ma xol say veer nañu docteur Mousse dit tu quoi Nadi T'es trop calme depuis ce matin. Oro, oh, oh. qu'est-ce qui se passe Rien. Bon, dama am lu ma métti quoi. Je pense que dama xam ne mérité woo lii mon problème ren régler. la sama yaay ak caat lan c'est un problème mais lan nga leen def mais lan la lépp lu la war sa diggante ak ñoom yaa ngi koy def lépp luy teraanga yaa ngi koy doxal seen diggante mais lan la tamit man mun naa nangu sax benn affaire nga nekk jigéen di sëy ci kër defoo sa wareef ñu contour la wala ñu jàppante ak yow mi dara yaa ngi sëy comme ni nga war a sëy suba ngoon yaa ngi dab seen bànneex di daw xoolal essence yi ci koor lañu nekk te woor dafa metti mënoo ko boole ak liggéey di sonn te doo am lu la neex te mbëgg nga dem seen kër nga eggale foofu sa koor ba ñu wor yi tombeek ñu régler situation kër gi bu ko defee nga ñëwaat. excuse-moi mais je t'arrête tout de suite mais est-ce que tu t'entends parler li ngay wax yaa ngi koy seet bu baax. attends mais sëykat nga takk sama yaay dafa sëy ba dee kon damay topp ci ay tànkam man yëx siw ma te aussi seet siw ma dama seey si sama yaay lu mu daju sama kër pàpp amul façon souffrance bu nekk dund na ko alors pourquoi man doomam duma rey ci duma roy ci moom mi may sëy si dañ may yëpp soo sama nopp bu mu fees dell ni ma fifi boo demee nangu muñ ndax sëy du benn fan du ñaari fan début bi la rek moo neex mel ni ci des yépp dañ koy muñ mais ñun lu ñuy wax nii ay sëy dafa métti genre yooyu noonu ñun dunduñu dara suñu parents yi dañoo sonnoon seeni néegu sëy lu ñu dajul amul dañ daan boole togg fóot raxas dem rooti ten ak distanciation bi ni mu soree sokk lépp ñoo ko na defal seen bopp ba pare boole si ñu di prendre soin si seen seeni doom ba tey ñu màgg toy nii pourquoi pas waruñu mën a roy si ñoom Dadi ce que tu viens de dire que naa dellu sama kër yaay ma toog je regrette mais bu ko ŋaaŋaat sa gémmiñ bu ko sax bu waxati ba abadan day man bu waxati non je suis contre damay taw ci kër gi di toppatoo sa yaay di toppatoo sa rakk ak sa ndijaay damay sëy ba dee parce que lolu moy sama wareef Juf nak bëggoon na ñu waxtaan nda waxtaan wax dëgg ci la yow sama deret nga mu nek kilifa ci kër gi boy ram? may ram waye boy boy nawti may naw juuf li nga nek fenn jamuru cheikh mi rek nek ci keur nga la jël ko wit mayo ko jam mayo ko salam ki sa nawla la defu la dara ba nga sonal ko wit bu la defon dara man kilifa la mat na mat gu tolni ni bu la defon dara man ko li nga def ko fenn waaye defuloo dara lan mooy sa problème chat mi day sey te bu seyé bëggoo ñu jàppee ko ni ni nga jappé ni ni nga jappé sa gor bëggoo ñu ko non bayal doomu jambur ji nak nga may ko salam ma mom sama balik, ak sama jubóo mayuma la da nga ni kër gi amul jàmm yaa ko xagn kan. fifi naa mu am yaa ko ko may ndax yaay yàppar yàppar ci ginnaaw gis nga bu dee dalaa may yaayam danga koy wax man kontew ma leen loolu nga naan nag ñoo bokk ndey ak baay yàq nga ko doom man duma yow sa fulla fu mu nekk yow war ngaa toog fii di ma baalul di naa baal naa baal fifi pour lan makoy bal baal ma respecté wuma ma jëkkëram faalewu ma respecté wuma nga and ak mom di yàppar yàppari ñew ci sa keur rak fekk ko mu am problème nga warona and ak man nga woy ma nele àndandoo ak ñoom di ligo ak yaayam ak diko doxaan yëg lepp da nga manki nga yor ñaari jabar lo len dara di wut loo ci dolli. lamu tax lo wax rek duggal roof sama ñaari jabar lu ci lu si la moo tax do deñ secret. ana secret suma la wéré wér sama bop suma la wéré wér sama bop awma ku la gën malgré nak sa jikko neexuma dara neexuma ci yow ndax bo ñëwé ci kër gi ndax ma gane ci fekk ma am ay problème dangaa waroon a ñëw àndandoog man bañ ma bàyyeeg sama doom ji ma wéet waye fo tollu ya nga ca xeex lo xam ci man netali len ko. safatooma luy nduroog ndox gis nga ndox ak ni mu safatooma lu ni mel bul toogati nag ci sama kanam naan baalil baaliw ma bokk ndey ak baay rek li ci olof yi wax bokku néeg la ku xëy yël bu dem loolu ma dal sama digganteeg yow gis nga man ni ma mel ci lay dee bëgguma ko te duma ko bëgg na ko daan waxee moo ma dal du langsung sungu friend la Galat la yew la ne ko mer bi dafa am bop borom kang la damay xalat kar nga ñak fayda bad ku la mooy dalaa rëcc bul ma joy bu ñe mbilim mbacc nga genn sarango ñu seytane yi fa lew mako gis ne li ngeen nan dama rew ak dafa rew man la dama réew ba dof caat laa ne moom ku koy faj ku war a dindi sama réewande man danga cee mën dara def ko xamoo ba ci yam tey nag boobu moytuwul samay jooy dinaa la ko partagé ndax jooy yi nga xam moom laay def moom laay jël def jox la ko boobu moytuwul léegi ko jooy kon dootoo ko defati kon dina mel ni ba ngóor defee taatu neen dugg ci àll bi dajee gaynde xanaa xamoo ma. waaw jeex na wala ngaa jot.